Sall Koungheul département bu Koungheul. Euh, ñaari mbir moo ko waral ndax gis nañ ne fan yi weesu senegal amoon na ay yëngu yu fi amoon ñi ne nañ ñëw dajale jigéen ñi jigéenu département bi waxtaan ak ñoom mais masawu waa senegal yi nga xamante ni tey lu métti kenn na ñëpp jaale ñi nga xam ne jot nañoo ñàkk ci seen bakkan mais expliquer leen aussi. taxawaayu président Macky Sall fii ci département bu Koungheul ak réalisation yi nga xam ne def na ko ci département bi mais rawatina ñun ñi nga xam ne ñun jigéen ñi vraiment gis nañ ci suñu bopp ndax jàpp naa ni ku jàppale jigéen jàppale nga góor ñu ne nañ ñëw dajale suñu waa département aussi waxtaan ak ñoom beneen bi mooy ma nekk député defoon tournée départementale bi ma duggee ci askan bi ñu tawtal ma ay jafe-jafe ma am loo xamante ni joxe woon naa ko li desoon tey mu jëm ci wàllu jigéen ñi ma ne naa leen ko joxaale. joxe woon nañ ciment tey mu desoon chaise ak mbana ak ay bassan ak ay jeu de main. jox nañ ko en tout cas département bi yëpp gis nañ ci seen bopp jox nañ parce que commune bu nekk dañ fa tànn juróomi dëkk séddale leen ko. joxe woon nañ vingt cinq tonnes ciment mais tànnoon soixante groupement defal leen lalal bassan tey ñu séddale femmes yi ay seize ak ay mbana ak ay basang. ci loolu ñetti ñetti téeméeri million ak lu teg loolu dafa ci yoon bi ji. parce que président bay Sall ku nekk xam na ne liggéey rek a ko ñor te gisoon nañ wax dëgg yàlla DER bi amoon na ci taxawaay ci département bu Koungheul mais ñu ngi koy ñaan aussi financement yooyu mu jagleel ndaw ñi bu mu ci fàtte aussi waa département bu Koungheul rawatina jeunes yi. ñu ngi ci tool bi jot am ci gannaaw looy ñaaxaat euh, politiciens yi ñu gën a ànd mbooloo ba ko gën a ci maa ngi ñaan kilifa yi nekk ci dëkk bi yëpp ñu ànd kilifa diine yi sax même ak kilifa aada yi ak leader politique bi ñu ànd ñun ñëpp nekk benn ndax mbooloo moom mooy doole te président Macky Sall loolu la woote te loolu moo ñuy yokk aussi tey suñu département dëgg la am na loo xam ne soxla nañ ko mais tey pour ñu gën cee gaaw a jot mooy ñun ñëpp dañuy fexe nekk benn di xàccandoor di doorandoor ku ci nekk aussi fàtte tuuti sa bopp ñu xool intérêt département bi mais xool intérêt réew mi at mu ne ñu yëkkati benn programme rawatina programme DER ñu bëri ne dañ ko finance nañ ko maay ñu bëri di gisuñ seen bopp. ndax njortu woo li li ñëw mel noonu ak looy ñaax ñi nga xam ne ñoo joxe pour kenn ku ne la nga yelloon nga maa ngi ñaan ku ci nekk président bi nga xamante ni wax na ko wala mu indi programme bi amul ci amul ci xaaj amul ci seen maa ngi ñaan fonds yooyu kii ko yor aussi. na ko jaarale ci ni ko président bëggee tey président moo njaboote Sénégal yëpp nga xamante ni tey ndaw yi nga xamante ni am nañ projet wala ndaw yi nga xam ne yelloo nañ ko ku ci nekk aussi gis si sa wàll aussi ñi koy ñaanaat tey wax dëgg président gis nañ ne tabaxal nañu centre polyvalent bu mucc ayib ñi ngi ñaan ñu ubbi centre boobu ndax centre boobu ñu ko ubbeekat dina tax jigéen ñi ak ndaw ñi mun cee xëy mais ndaw yi nga xam ne amuñu qualification dinañ ci mën a di daan seen doole su àndeek financement yi nga xamante ni président tey jagleel na ko waa Sénégal yëpp foog naa ne département bu Koungheul incha allah dina dem ba ci dina dem ci kanam. mu defal ñu am solo aussi tey am na réalisation yu am solo ci wàllu tali ci ci wàllu piste ci wàllu ndox mais ci wàllu électrification rurale mais tey ñu ngi koy ñaan am na ci piste boo xam ne jaaxal na askanu département bu Koungheul yëpp muy luur Escale Koungheul jëm ba Jolof ndax. yoon boobu dafa nekk loo xamante ni tey su baaxee mais dafay yokk département développement région de Kaffrine mais rawatina département bu Koungheul ñu ngi koy ñu ngi koy xaar te xam nañ ne incha allah dina ko def mais ñu ngi koy ñaan mu gën a gaaw ndax population bu Koungheul soxla nañ ko. en di dalal seen xel bu baax di leen wax ne leen président dégg na ko ndax mu ngi woon ci ndaw ñi mais tey créé na fonds boo xam ne pour ndaw yi la. may ñaan rek ñun ñëpp di di ñaan ndaw yëpp ñu ànd booloo nekk benn te yàq bi nga xam ne ñi ngi koy yàq foog naa ne loolu nekkul li nga xam ne daf ñuy yokku mais jàpp naa ne loolu daf ñuy gën a indi coono ndax ñii bu ñuy defar ñii di yàq foog naa ne si suñu kaw rek lay këpp waat président dégg na seen i tawat gëm naa ne incha allah balaa yàgg jeunesse Koungheul dinañ ci gën a gis seen bopp. waaw coow li xam ne tey moo tax euh, Macky Sall le président de la République wax ak les Sénégalais mooy coow li xam ne sa naataango député Ousmane Sonko yëkkatoon mu amoon amoon na ko ak benn sénégalais lan ngeen ci mën a wax en tant que collègue Ousmane Sonko wala coow li lu mel nii ci Sénégal. en tout cas ñun boo ñëwee boo gisee réunion bi nga xam ne ñun loolu ñun yëgaluñu ko suñu yaram. parce que nag foog naa ne loolu ñun mënuñoo yëngal ndax président Macky Sall bi ñu ànd moom dafa ñu présenté programme bu am solo ñu gis ci suñu bopp ànd ak moom te boobu ba léegi mu ngi ci. foog naa nag bu fekkee da ngaa bëgg réew am na benn taxawaay boo xam ne war nga ko yor ndax Sénégal dafa am loo xamante ni moom lañ baaxoo réewu jàmm la mais Sénégal réew moo xam ne la ñëpp ñoo ko bokk mënu ma ne dama bëgg réew. di tax xale yi di kéré xale yi ñuy dee di xeex di yàq foog naa ne loolu ku bëgg réew waroo ko doxee président Macky Sall ku nekk xam na jàmm ji nga xamante ni moom lay woote di ko félicité bu baax ci discours bu mu def ndax kilifa noonu lay def ñi ne waaye parce que tey foog naa Sénégal ñëpp am naqar ndax xale yi dee ñi ne waaye nga ne deuxième vague day am kon ñun ñëpp nañu yeewu xoolaat bu baax ña nga xam ne ñoom la ñuy àndal waxuma la sax jox réew ndax jàpp naa ne bu ñuy jox tey réew mi dañ koy jox nit yi nga xamante ne nit yu responsable mais nit yi nga xam ne nit yu bëgg Sénégal la ndax man duma xalaat sama bopp rek ne tey parce que woo nañ ma mais yow woo nañ la demal wuyu ji mais du ma woo nit ñi ci dee ndax ay innocent yoo xam ne xam xamuñ ci dara ñoom ñoo ci dee kon maa ngi ñaan ndaw yi nañu yeewu nañu yeewu bu leen kenn déstabiliser ñun daal en a cas département bu Koungheul ñu ngi dala xelu président bu baax a baax ne ko ñun fii président ba suba ba ginnaaw suba ndax dañoo gis suñu bopp ci moom